di leen wax aussi li nga xam ne dañ ko war a wax te dañ ko war a leeral pour mu dugg ci bopp askan bi yépp parce que xam na wax bu jógee ku nekk ak na nga koy déggee mais ki wax xam na li mu wax ak fan la ko waxee ak naka la di leen won ne di leen xamal aussi que ne dañu gën a am suñu engagement ak la président de la république monsieur Macky sal tey lañ ko gën a gëm tey lañ gën a ànd ak moom tey lañ ko gën a wóolu mais derrière l'honorable député monsieur Yaya Sow parce que rafet na aussi nit ki bu ñu dajee wala booy wax nga wax l'essentiel et ce qui important diggante Yaya honorable député Yaya ak le président de la république foofu kenn xaju fa doomu aadama yi nañu bàyyi su wax jógee ku nekk di ci profito di wax lu la neex pour gën a yokk leneen loo xam ne amul nañu bàyyi loolu Yaya honorable Yaya gëmul ku dul président Macky Sall yitteem mooy président makisal Sall bëtam mooy président Macky Sall tànkam mooy président Macky Sall képp koo xam ne dégg nga ne honorable député Yaya xuloo na ak yow dans le département de Koungheul même ailleurs da nga bëgg def leneen lu méngoowul ak ndigalu njiiti réew mi. suñu waxee Koungheul suñu Koungheul la parce que fii amul lu fi yaay def pour Macky Sall le président Macky Sall amul lu fi yaay dajul président Macky Sall amul lu mu àttanul def ko pour le président Macky Sall kon foofu nañu fa limité wu. lii mënuñu ko ñàkk tontu parce que bi ñu jëlee engagement pour tontu tamit. du luñ ko yëgal du lu ñu ko wax ñun ñoo ko jël nous les jeunes ñun ñoo ko jël ñun responsable départementaux yi ñoo ko jël suñu bopp defal ko suñu bopp le leeral li nga xam ne moo bëgg lënal si doomu aadama yi mooy diggante le président de la république ak honorable y'a aucun problème jàmm moo am seen diggante nit ki ne su may ànd ak yow di ànd ak yow di liggéey di ànd ak yow doon sa bayfal doon sa bëkk néeg di la sonal di la ñaxal ba li nga bëgg nga am ko su ma demee ba gis loo xam ne doyuma wala neexuma hmm. wala bokk la li nga xam ne moom lañ bi ma doon sañ naa taxaw défendre ko su fekkee ci démocratie lañ ne ku ne am nga sañ-sañ wax li ngay wax te mu leer te honorable wax fi loo xam ne lu lëndëm la li mu wax da ko wax publiquement ñëpp di ko dégg c'est la seule personne et l'unique incontournable loolu laa ko tuddee il est il est c'est l'incontournable ku ne mën nga contesté nag mais kenn nu ko détourné ci li mu bëgg a def parce que lépp ci yoon la ko teg